ak ban jàngat ngeen am ci accident yu nga xam ni fan yi bari na waaw loolu damay jël rek lu suma grand doom bàyyi doon wax euh, responsabilité partagée parce que saa bu amee rek lu ci ëpp luy nit ñi wax ne lu ñu njëkk a wax mooy chauffeur bi d'accord chauffeur bi am na ci responsabilité waaye dafa am loo xam ne dañ ko seetaan ba mujj doon jëye parce que ñun sénégalais on a souvent bu dara xewee sur le coup lu ñu njëkk a attention mooy euh, lan moo def fee maanaam kan moo doon dawal oto bi bu dee accident oto dañ naan kan moo doon ana chauffeur bi lañ la ñuy laaj. Mm. mais damay jàpp ne avant chauffeur bi yaa a y' avait le du véhicule avant kooku tamit y' a y' a du Sénégal parce que ñëpp xam nañ ne ñun chauffeur dañoo nekk ci benn secteur informel. Mm. te des fois boo déggee man la léegi responsabilité partagée des fois nu ñu recruter chauffeur bi ni ñu koy jëlee. daf ci bëri ay détails yoo xam ne ni en tant que chauffeur professionnel euh, ñaar li ci tali bi chauffeur de taxi concept li ci tali bi may nekk ci tali bi di dawal di taxi di am jàngat bu profond bu may def ci des fois ci comportement bi xam nga léegi nee naa la responsabilité partagée de un damay njëkk wax ki moom oto bi xam nga léeg-léeg da waxtaan parce lorsque j'étais à Afia FM parce que nekk naa fa comme animateur ci wax ci wàllum transport. Mm. rajo Afia def naa fa deux ans. dama doon invité acteur transport en général léeg ma woo benn chauffeur euh, Tata bu ñuy waxtaan ñoom ci seen bopp ñoom ñoo doon wax ni des fois am na ay chauffeur ci seen biir yoo xam ne nii bi ñuy ñëw ci oto bi dañ fa nekkoon comme receveur. Mm-hmm. parce que lu ay di jàmbat. fokk ñu insister ci côté boobu parce que euh, fan yi euh, ñoo xew malheureusement ni ñu xewee dara baaxul ay accident yoo xam ne nii mm. euh, am na ci ay nit ñu ñàkk seen bakkan ak dawalin boo xam ne bu incorrect bu indiscipliné caractérisé et notoire parce que loolu lañ gis quoi tax des fois nag vraiment il faut appeler la chat le chat pour ñu jéem a avancer parce que foofu lañ toll. Mm. wax na ko léegi nee na jub jubal jubanti. pour ñu pour nga pour nga mën a jubanti foog nga jub. ba pare. ba pare. yow mi yow mi sa bopp. waaw yow mi mm. koy wootee balaa nga naan naam ne fa. kon chauffeur yi ngay waxal. chauffeur yi laay waxal parce que chauffeur laa. Mm. parce que bay sa weewu tànk tamit. Mm-hmm. dëgg la. ñun la on est responsable. Mm. certes mais comment se fait que yow chauffeur yow propiété du véhicule nga jël say million jënd ko oto jël ab receveur de chauffeur bi na ko jàngal dawal mu jàngal ko dawal ak naïveté moom tamit. parce que dafa bari ay cause yu nekk ci biir parce que koo jàngal daw bu ñu la doon fay cent mille francs moom bu ñu ko fay bu ñu bu ñu la doon fay cent mille francs moom bu ñu ko fay cinquante day jël. parce que defal nañ ko lu mënutoon am jàngal nañ ko dawal utal ko permis ba pare jox ko liggéey jox ko oto mm. kooku dafa am luy des lu baree bare bari ci moom parce que nag mbappatul tarbiwul mm. te ñooñu ñi ngi ci seen biir secteur ñoom ñoo ko doon wax bañ koy wax je ne savais pas un jour je serai ici lii xew ba ma koy wax kon war foog ñoo ñu seetaat seen bopp parce que tamit man damay faral di wax saa yu ñu jàppee chauffeur dugal ko kaso. Mm. yoon la ñuy jëli borom oto dugal ko kaso. te muy dëgg. parce que tamit chauffeur ci ñoo yóbbu oto yi d'accord ñoom soo sont fautifs des fois da nga ci gis ñoo xam ne nit sincèrement dañoo mérito wàcce oto bi tàndar leen par duma leen duma yu métti parce que tamit munoo yab ay bakkan di def yi rallye Paris Dakar di njëkkante da gis euh, p ak P9 di loolu c'est insensé c'est irréfléchi cest à xel moo ko nanguwul yéen a bokk fu ngeen jëm bokk jëmukaay. di njëkkante moom ngay wax sànq di njëkkante loo xam ne nii yow mënoo ko comprendre. kon damay comprendre kon li tax borom oto yi weguñ leen respecté wuñ leen maa ngi doog a comprendre li tax teguñ leen seen place di leen tourner autour du pot di leen ñàkkal fayda parce que ñoo ñàkk fayda ba pare parce que uude nu mu la gisee la lay ëwale. le respect commence léegi nag. dafa am beneen côté booy état du Sénégal. Hmm. dañoo toll ci jamono joo xam ne dañoo bëgg a avancer nag il est que ñu dem nag pour dem nag dafa am ñetti façon yu am bu njëkk bi mooy. Hmm. am na ci ñoo xam dañoo mérito ku leen jëlee ci secteur bi yóbbu leen mbëbës. ñu def fa la. mbalit ça veut que bëgguñ lu baax duñ def lu baax te dañuy yàq. Hmm. ndax bu ñuy saaga ne chauffeur dañuy généraliser or que y a des brebis galeuses dans tous les corps. dëgg la am na chauffeur yu. dëgg am na si ñoo xam ne mbëbës la ñu war a dem mais am na ñoo xam ne dañoo yelloo ku leen gàgganti waaw mm-hmm. dañoo dañ leen war a taaj expliquer leen parce que ils n'ont pas compris mm-hmm, mm-hmm. fàttali leen seen ak ak seen yelleef mais am na ñoo xam ne dañoo yeyoo ay duma nag des sanctions sévères sanction mënul ñàkk parce que damay faral doo wax tubaab bi gënuñ ñoo jub dañoo ragal ku laal seen poos ñun nag da foofu lañu toll parce que nag tamit. foofu ngay woo état du foofu laa leen woo parce que tamit euh, le fait que. ci sanction yi sa mënoon ñàkk. d'accord mais ba pare nag daan naa wax ni dafa am ay catégorie de chauffeurs yoo xam ne dañoo bokkul système bu juy liggéey am na interurbain am na urbain. Mhm. am na chauffeur particulier. Mhm. chauffeur personnel. Mhm. daf ci am ñoo xam ne maanaam da euh, transport nekkul nit ku ne boo ko war a def foog état bi. jéem a avancé créer ay structures yoo xam maanaam ay. Euh, ay ay ay ay centre yoo xam ne. ñu assainir secteur waaw c'est-à-dire yow boo bëggee nekk chauffeur transport. Mhm. parce que trans chauffeur transport dafa am benn rapport direct comme chauffeur taxi. Mhm. balaa ngaa jël clientèle bi da ngeen di waxtaan dafa am benn rapport bu am sa diggante ak moom d'abord kii jël taxi ñaari choix moo tax mu jël taxi le confort et la sécurité si n'y a pas confort amul sécurité. pour am sécurité bi foog nga wax ak chauffeur bi jàkkaarloo moom ñeme ko ñeme dugg ci biir euh, taxi parce que am nga ci moom qualité parce que li muy wax ak yow y' a parce que ci biir wax nit da ngay dégg arrogance kooku bu ngeen demee ba am problème am na lu mu junjoon parce que luy olof njaay naan lu feeñ ci say nuyoon na sa ngoro dañ ko tànqam lu